sallallahu ala ala nabiyina muhammad wa sallallahu wa sallam ala sayyidina muhammad allahuma salli wa sallim wa barik muhammad julli gune da nga ko dégg loolu nag mooy julli ci yonte bi loolu nag lu am barke la moo tax sëriñ bi itam façon woon nañ ko waxee léegi at mi da koy xaaj ñaari xaaj juróom-benn xaaj yu njëkk yi day tagg yonte bi alayhi salaatu wasalaam juróom-benn xaaj yu mujj yi xasida yëpp ci julli ci yonte bi la koy def xasida yi mu def ci julli ci yonte bi nag moom la sëñ bi wax ne sëñ bi suñ suñ bàyyi nañu fi lu bare bari yoo xam ne ci la jëm bokk na ci muqaddamatul xidma nga xam ne lépp weesar la sëñ bi def ko bi mu laata dem ci géej gi ak lu ma ne ma faatixul bishri moom way la di xasida julli ci yonte bi ba tey nooru daare ni noonu moom it yaakaar naa mooy gi gën a gudd ci xasida yi ndax gisuma xasida gu gën a gu budul xasida weesar yi ci ay way daanaka moo ci moo ci ëpp moom it julli ci yonte bi alayhi salaatu wasalaam jaalibatul maraaxib moom fi ne nii ñu bari fonk nañ ko lool xasida la koo xam ne julli ci yonte bi alayhi salaatu wasalaam donte yi daan nga dégg ñu ci wax ay ay ay ay yoo xam ne du wér xisa yi ñu ci wax yi ci bari wérut waaye loolu sequt ak dara jeexit yi nga xam ne moo nekk ci mbindum sëñ bi ak jeexit ji nga xam ne moo nekk ci julli ci yonte bi sallallahu alayhi wa sallam te mooy xasida yi am na ñoo xam ne dañuy wax ay xisa ngir bëgg nit ñi gën ko fonk waaye loolu yaakaar naa taxul kenn gën ko fonk ku koy fonk da koy fonk ngir yàlla ak lim nekk mbindum sëriñ bi ak lim nekk mbind moo xam ni tudd yàlla la goo xam ni mas na cee jaare sa xol defar bu ko defee itam julli ci yonent bi Sëriñ Tuubaa daa jàpp ne loolu farata la ci jullit bu ne ndax yàlla moo ko digal wa sallu alayhi wa sallimu tasliman yàlla moo ko digle mooy julli leen ci moom kon loolu farata la ci jullit bi donte benn yoon la ci dund mënta ñàkk faw nga war war nga wax ci sa dund allahumma salli ala sayyidina muhammad loolu farata la ci benn yoon ci sa dund yaa ngi koy waxaat na yooyu naafila la bu ngeen seetloo farata bu ne dafa am naafila xam ngeen ne julli farata la waaye li ci farata mooy juróomi waxtu yi suba ak tisbaar takkusaan ak timis ak gee waaye julli ni mu amee farat noonu lay amee ay naafila mooy boo jullee suba bala nga julli suba ñaar rakkaay yi ngay julli loolu naafila la bala nga julli tisbaar ñeent rakkaay yi ngay julli ak boo julli tisbaar ba noppi loolu naafila la bala nga julli tegsaan am na ñeent rakkaay yu ñu fiy julli loolu naafila la bala nga boo jullee timis ba noppi am na juróom benn rakkaay yu ñu fay julli wala ñeent wala ñaar Sëñ Tuubaa wax nañ ne Sëñ Tuubaa Sëñ Muhammad Cheikh Muhammadul Basiir wax na ne ci Minanul Baaxil Xadim ne Sëñ Tuubaa bu masaa julli timis ñaar rakka yam fay julli baqara la ci tari ak Ali la moom la ci daa tari foofu nag boo ma ne ñaar baax na ñett baax na ñeent waaye loolu naafila la ginnaaw boo jullee gee dinañ fi def ay naafila yu bari bokk na ci mën nga julli am na ñuy julli fukki rakka teg ci sabaa quatre-vingt fukki ñett ñi nga xam dañoo jël ak wirdul maaxus loolu sart la ci ñoom nga xam ne ñoom ni seet dañoo di julli dengan am fukki rakka ci guddi gi mu dugg naafila yene ci xiyaamu léegi boole jeeg sabaa watar muy fukk ak ñett comme niñu def ci koor Cheikh bu khodos mu bax mi daana mo mas na ma wax ne ma mas na ma wax ne ma mom niñ koy naafilaa ci koor gi rek la koy naafilaa bu dul koor mo ñaar ci bëgg ne si la ci tal lool nag sëñ Tuubaa daan wax ne ko ko mokal ku mokal alquran loolo ci gën ci bo jele wetu maaxuus boo ko na nga ci dar ñet lixlaas sëñ Tuubaa mo da wax lool bu dee kon na julli dafa am dafa am dafa am ay ay ay ak naafila waaye koor itam am na naafila gi ci farata mooy ramadan mooy weeru koor bu ko weesoo koor yi ñu defar yëpp kooru naafila la juróom benn fan yi yi nekk ci weeru koor yi ak bisu arafa ak yeneen ak yeneen ak yeneen bu loolu weesoo itam bu la mel ne asaka am na farata mooy asa mooy li ñoo asaka li ñu ciy génn nga xam ne farata la yàlla ko moom waaye am na naafila mooy sarax aj màkka am na farata mooy xaj bi nga xam ne benn yoon lañ koy ci at mi waaye umra mooy mooy mooy mooy naafilaam jaamu yàlla yëpp day am farata waaye de am naafila julli ci yonte bi itam noonu la defee dafa am farata muy benn yoon ci sag dund mënta ñàkk nga wax allahumma salli ala xam muhammad bu ko defee yeneen yi ngay defaat yëpp naafila la naafila nag mooy loo xam ni ci la ñuy àggee ci yàlla bëgg la fi ni farata yi dañ la ko sant boo ko defee dalaa war boo ko defut dalaa war waaye suñu borom da wax ne ma taqarraba ilaya abdi bi cheyin ahaba ilaya mimma aftaratu alayhi aw kama qaala alayhi salatu wasalaam mooy sama jaam bi li may jaamoo amut lu ci gën lu ma ci gënal farata yi mooy loolu dala ko sant soo ko defee baax na soo ko defit bis dina ñëw nga xam ne defoon koo gën moo boo faatoo yàlla dana ko fayoon teg yow waaye nag naafile yi loolu yi ci la ci la ci ngay doone masam wàllu yi nga gis yëpp lu ceege ne yemoon ci def farata yi teg julleeg war farata teg déedéet naafile yi ci la yàlla boolee ci ci ci ci ci nit yàlla yi ak wàllu yi ak mu bëgg la da ca ndax xadis boobu da teg ne wa ma taqar laa yazaalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawaafili xatta uhibbahu mooy sama jaam bi bu defee farata farata yi ba noppi nag lam cee tegaat ci naafila bu dee ci naafilay koor yeeg naafilay julli yeeg naafilay salaatu ala bi yi ma waxoon ak naafilay aj màkk yooyu ma wax naafila yooyu ngay def nag suñu borom doo wax ne boo koy def bu yàggee yàlla dalay sopp xatta uhibbahu